responsabilité yéenekaay bi di Vox Populi yi àddu jëmale tey ji nag ci état bu Sénégal mi nga xam ne rek bëgg naa saytu lu jëm ci contrat minier yi pétrole ak halieutique nag yéenekaay bi ne bi ma ngay yi nag Diomaye ak Sonko fi mu toll nii nag ña ngay àddu jëmale ne rek bu Sénégal ma ngay fas yéene amal ak saytu goo xam ne rek da koy amal ci revue publique boo xam ne rek ci atum janvier lay tàmbali ba fanweeri fan ak mars atum 2024 yéenekaay bi nag ne duñ ca yem de ñoom état bu Sénégal namm nañoo teg loxo nag suuf si nga xam ne rek jàpp nañ ne moomeelu askan wi la te état bu Sénégal joxoon ko ay privé ñu koy tabax ci lu jaarul yoon Ousmane Sonko jamono ji nag bëgg naa wàññi train de vie bu état bu Sénégal ci jamono joo xam ne rek service administration bi nag ña ngay def ay recours ci wàllum location bi Sud Quotidien faylu ko ne secteur de l'élevage bi ak lu jëm ci wàllu réduction train de vie bu état bu Sénégal nag récupéré waat lépp lu jëm ci wàllu patrimoine foncier état bu Sénégal ma nga cey jël ay décision ak i orientation ci ndajem conseil des ministre bi ñu doon amal Sonko ma ngay fuye ministère yi convention yeeg lu jëm ci wàllu finance yi yéenekaay bi ne état bu Sénégal bëgg naa wàññi itam nag lu jëm ci wàllum dundu gu cher gi wàllum connexion internet waaye nanguwaat itam nag suuf si nga xam ne rek dañu ko jébbaloon ay privé ci anam gu jaarul yoon enquête yëglekaay des ba tey ci lu jëm ci wàllu suuf soosee nga xam ne rek régime bi fi nekk jamono ji nag bëgg na ci ay leeraange ñeel anam bi ñu ko joxee ay privé ñu di ko tabax ci anam bu jaarul yoon Le Quotidien yëglekaay ne Ousmane Sonko kay moom jamono ji nag ma ngay càmbar liggéeyub Macky Sall moom élimaanu jëwriñ bu Sénégal bëgg naa xam na mu daan doxalee ci juróomi at yi ñu weesu yéenekaay bi ne Ousmane Sonko fi mu toll nii nag tuba yu ne rek ngir daanaka amal ay audit général jëmale ko ci juróomi at yu mujj yi nga xam ne rek ci la Macky Sall nekk ci bopp réew Sénégal ginnaaw bi mu sàkkoo ñu dakkal liggéey ñu doon amal ci littoral bi nag moom Ousmane Sonko ma ngay xam ne ni nag danañ càmbar convention minière yeeg pétrole yi ak lu jëm ci wàllu halieutique nag càmbar nag lu jëm ci finance publique bi nga xam ne rek moo door ci atum mars 2024 lu ni mel nag lañ ca jublu ñu ne bokk na ci daal di jëfee lépp loo xam ne rek dañ ko doon dégg askan wi ci jamonoy campagne électorale bi laas yëglekaay daal di àddu jëmale nag ci lu jëm ci koppar yi nga xam ne rek moomee askan wi la lu jëm ci wàllum suuf si nga xam ne rek dañu koy caxat-caxatee ci réew Sénégal yéenekaay bi ne Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngay ju di teg ay gaayam des ba tey ci lu jëm ci wàllum càcc gi ñuy tudd ci wàllum suuf ak ni ñu koy caxat-caxatee fii ci réew Sénégal yéenekaay yu bëree bëri nag àddu ci maire bu Sindia mi nga xam ne rek yóbbu nañu ko ca kaso ba libération nag ne ginnaaw bi ko waa gendarmerie tegee loxo nag moom Thierno Diagne maire bu Sindia nag dañu koy yóbbu ca kaso ba la ñu koy toppee bokk na ci wàllum escroquerie wàllu blanchiment de capitaux foo et usage de faux ñeenti dossier moom la ñu ko déposé ci kanamu yoon ñu àddoog yéenekaay bi di Le Témoin fekk fa kàddu yi nga xam ne rek mu Njaay Siise mu ngi ko jëmale ko ci tolluwaayu réewu Sénégal ci biir yëglekaay bi nag moom mu Njaay Siise ma ngay xam ne ni nag faaw mu am lu bëri loo xam ne rek dañu ko war a jooyantiwaat li gën a am solo ci jamono ji nag moo ñu daal di saytuwaat wax lu ñeel calendrier électoral bi nag moo xam élection législative yeeg territoriales yi yooyee yëpp nag mën nañu koo amal ci benn at moom mu njaay siise nag ma ngay ñaaw lu kàddu yi nga xam ne rek moom la baa jaxate yekk kii nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko waaye rafetluwul benn yoon nag ni ñu ko emprisonné ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi bu ñu bëggee tëj ñépp ci kaso bi nag daañu dem kon nag ba Sénégal am lu ëpp 2000 prisonniers politiques ci lu jëm ba tey ci mbirum baa jaxate nag le quotidien yëglekaay ma ngay àddu jëmale ci teg gi ñu ko teg loxo ni jamono ji nag waa APR nag ñoom ñépp daat nañuy defub dank di ñaaw lu teg loxo googee ñu jàpp ne jaarul yoon ña ngay jàpp ne nag jaay doole moom la nguur gi fi nekk di amal jëmale ko ci seen kaw ñoom waa APR nag xam ne nañ ne kilifa yu yees yi nag tànk yi ñu jugte rek bokk na ci salfaañe nag liberté ak démocratie fii ci réewu Sénégal retour de parquet nag moom la activiste apériste bi am moom ak imam Cheikh Tidiane Ndaw daañ leen defeere ni ki tey jii jamono ji nag ñoom waa APR yëpp taxaw nañu nag fas yéene amal gatsa gatsa ak nguurug Jomaay Fay addu jëmale ci leneen wax ci réew mi quotidien mi nga xam xam ne rek ma ngay dellu siwaat ci kàddu yi nga xam ne rek moom la docteur Abdoul Aziz Kassé daal di xamle jëm ci wàllu cigarette fii ci réew Sénégal yéenekaay bi di xamle ne fukki doomi aadama ak juróom nag dina ñàkk seen bakkan minute bu ne ndax wàllum cigarette si nag docteur Abdoul Aziz Kassé di xamle ne ci atum 2022 lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari million ci ay ndaw yoo xam ne rek seeni at ci fukk ak ñett jàpp fukk ak juróom ci la toll ñoom ñooy li nga xam ne rek moo di cigarette si lay fa yëglekaay ne xam ne rek moom la yi nag moom ma nga cee yëglu jëmale ko ci état bu Sénégal ngir ñu daal di ciy jël seen ay matukaay docteur Kassane ci biir yëglekaay bi am na benn drogue boo xam ne rek moom la ñu dippee zombie naam gisaguñ ko ci réew Sénégal waaye bis bu fi yegsee nag xam leen nag musiba mbaa bëkkumba rek lay juróog lu mel ne chicha nag moom docteur Kassé sàkku na ci kilifay Sénégal ñu daal di koy génnee ci réew mi àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak mercato bi nag sénégalais yi nga xam ne rek ñoo nekkee ca France stade yëglekaay ne iso boo moytuwulee nag dana fekk ji Pape Gueye ca Villarreal réew mi sport addu jëmale ci final Europa League mu ne Atalanta nag moom cartonné na Bayer na Leverkusen na ginnaaw ab triplé boo xam ne rek moom la Ademola Lookman amal sunu lamb daal di addu jëmale ci kàddu yi nga xam ne rek Gris 2 mu ngi koy avertir doomu tàngu ma ngi koy xamal ci biir yëglekaay bi nag ne ko man xaw ma luy round d'observation Youssou Ndour moom di menacer Pape yi ne ko sama combat ak yow nag bis bu ñu janoowee du am ay simili mbokk yi li gënoon a fës yëglekaay yi jàmm ak jàmm. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec may seen revue de presse